jërëjëf euh, Abdoulaye Diop Yacine jërë ngeen jëf internet yeeg euh, auditeurs yi ñu ngi leen di jaajëfal bu baax baax di kontaanaat encore une fois di ñëw seen journal des faits divers euh, xalaas ànd ceeg Mamadou Mohamed Ndiaye ak Passepartout Ndiaye maa ngi lay béggee. maa ngi lay delloo mbégte mi bu baax a baax baax Ababacar Ba yaa ci jàmm. sant yàlla noo def ak feet yi. ah ñi ngi ci rek ma ne ko ñi ngi ci rek xam nga rajo ak télé moom amuti feet ndax eh. rajo du tëj. Mhm. du noppi télé du tëj. waaye un week-end long de. waaw ah, ba <laughs> sant yàlla rek. comme jàll na ci jàmm ak salaam daal aba ah. ñu sant yàlla bu baax a baax di ñaan yàlla mu dolli ñu jàmm nuyu waa Sénégal ñoom it di leen ñaanal jàmm fu ñu mën di nekk. Mm-hmm. nuyu sama waa ji passe partout. passe jaajëf waay. yaay baax. un week-end très long. un week-end long pour certains. week-end long pour d'autres. week-end pour Ndiaye et court passe. Hmm? maa ngi lay bu baax Ndiaye daf maa liggéeyloo démb. ni mu demee noonu na ko ñëpp yëg. maa ngi lay ziar di ziar auditeurs yi ak internet di nuyu ñëpp di ziar ñëpp di leen ñaanal jàmm. ayca xalaas express balaa ñu ci ñëw wala xalaas wala fay am ci weekend bi nañ ci partenaire est-ce que jaay doo partenaires partenaire bi. jaay jaay jëf waay bu leen neexee damay tàmbalee ak bijouterie La Rotonde nek immeuble la La Rotonde rue Amadou Hassan Ndoye ci de chaussée bi bijouterie La Rotonde c'est numéro de téléphone du euh, fii yëpp gars yi ñu ngi may Je di ma ko laaj. ma joxe ko ngir ñu ñu 33 842 65 95 33 842 65 95 77 348 96 96. 77 348 96 96 wala 70 639 60 60 ñi ngi euh, ni ma ko waxee rue Amadou Assane Ndoye immeuble La Rotonde ci rez-de-chaussée bi bu ngeen fa demee kon mën ngeen fa fekk euh, ñi nga xamante ne ji ñooy euh, ci mel ni Ousmane Lam le manager wala bokk Arona wala asso en tout cas euh, fête fin d'année yi ay bijoux yu arrivage bu bees tàq la indi mais arrivage bu yéeme bu doy waar euh, or pur or euh, bi tax ñu or 18 ou 21 carats amna na ay bijoux en diamant yoo xamante ne ji indil nañu leen ko fële ci bijouterie La Rotonde partenaire beneen bu ñuy àndal ci xalaas moo Optique Vision Plus Sénégal lunettes partout et pour tous nek ci promotion di ko wéyal ba fim nek ni nii fépp euh, boutique optivision Plus Sénégal bu ngeen dem rek promotion bu yegg ba ci quarante moy quarante pour cent ci njëg yi lunettes yi accessoire lunettes yi mi ngi len fay xaar fepp ci rewmi optivision Plus Sénégal di and ak nous ngir bégal len ñu gëreum bu baaxa baax établissement wa keur Serigne Touba Fallé Frère ñi indigamo gamu vite fait bi gam bi di gën di complet saa su nek ndax euh, ma ngi len doon wax frotté beeg cuuraayu bant beeg pompe bi légui yokku nañu ci briquet wala allume gaz ak mouchoir vite fait crème vite fait pâte dentifrice vite fait lipo vite fait le ngir bëgg gambi complet c'est numéro téléphone 77 555 11 11 77 555 11 11 ababakar ay ci am solo pass. Yeah. Classe express amul. kunku japp nañ ko. kunkaande. wa japp nañ kunku. non euh, ya turandoo kunkaande nga xol kunku borom suma nañ ko. xanaa xamoo Ndiaye Konkane li ko jàppee nii. Hmm. jàll na xalaas ñaari hmm? affaire jàll na fi ñaari yoon benn femme bu nekkoon États-Unis ak benn booy booy bi ñu wax na ko defal vocal ne ko pour mu sacrifier ko jabaram ak doomam da day teg dil nañ ko de waaw bëggoon soppi 7 millions def ko 700 millions. million millions ba 700 millions. waaw. gars yi def di naan dañ lay soppi dañ lay multiplier xaalis. affaire euh, histoire bi ni mu demee. Hmm? moy suis euh, Amadou wouri Diallo Kunkande. dafa benn bu millions jox ko benen way Ibrahima Niass. voilà pour affaire transaction foncière. foncières, mhm. au lieu mu jël dem ko mais Kunkande def millions yi mën ko soppil mu millions. moom mu ngi ci réew mi. kan moom sant yàlla moom. <laughs> ah ci réew mi kay ndax fii <laughs> damay laaj ndax kunkande mi ko laaj jox ma ma defal la ko lii bi kunkande di wax day xar géej géej yooyu yëpp fekk na ko fi. ah fekk na ko fi kay. daal wax na ay bain mystique yu ko waaj a dóor ak. ay mm. kii yu ko sangat ak yooyu yëpp daal waaye jox na ko 7 millions yi te gisul 700 millions. léegi nag ci moom xaalis bi ba demee ba yëf yi bëgg a compliqué ci la ko yóbbu ci yoon. Mm. yoon dugg ci ñu jàpp. Ibrahima Niass nga xaw ma turam bi ak surnom bi xaw bu ci gën a sàkkale sax. <laughs> léegi moom lu ñu ko jàppee ci 7 millions waajale yi mu dugal ci Kunkande wala li mu doon liggéeyal Kunkande la ñu ko ci boppam borom 7 millions yi moo mooy keneen bi dem réew. waaw ñu jàpp waaj yi waaj yi ne leen Kunkande laa ko jox. Ibrahima dañu ko war a jàpp ñaari yoon. Hmm. waaw ñaari yoon. jàpp ko ci diw jox na ko xaalisam dugal na ko ci Kunkande. waaw jàppaat ko ci jéem a xaalis. moo Konkande ñoo yam loolu daal la am ci information bi su ma juumul euh, tey jii la ñu war a la ñu war a jàkkaarloo ak procureur bi donc démb lañ leen lañ jàpp Konkande. Hmm. ñas na xaw ma kañ lañ ko jàpp. ay démb daal lañ jàpp Konkande waa section recherche bu Thiès ñoo ko jàpp. Sali Sali lañ ko jàppee. ne ko ñëpp xam Ndiaye. Hmm. lii ñuy wax ne amul. multiplier xaalis amul. ñoom ñi di wax mënuñu ko buñ ko mënoon buñ fi nekk di nekk ci internet di wax wax ju bari 7 ko mënuñu 700 millions moom doo am jot laaj ay 7 millions di am lu bari loo xam ni mooy jël sa temps yëpp ba doo mën a di multiplier kenn sama bopp laay multiplier Ndiaye. 100000 ñuy jël wala 200000. jël benn valise bi koy kii ba mu fees jël 100000 yi tapp tappal ko ci kaw ba mu muuru ñu naan la valise baa ngi nii nangam a ci nekk nangam moo koy génne nangam moo koy euh, raxas ak dugg na fi génn fële dañ lay dóor xamuñu dara. benn affaire daal bu ñu ko defee suñu bopp abaa duñu sonn xaalis dañ koy liggéey. mu jeex tàkk nag. xam noppalu ko de. léeg leen nga dégg ñu naan xaalis dañ koy lijjanti mais boo ko lijjantee li fekk muy rees doo nekk ci jàmm. day jaxasoo sax. Ah, day boo ko lijjantee day day ñëw ci yow. jaxasoo li fekk muy rees doo nekk jàmm. par contre nag liggéey ko ñaq ko mu leer la lii sa ñaq la. Hmm. ku la ci fekk naw la nga mën koo lekk ci ci ci ci ci ci xel mu dal. Hmm. mooy xaalis dañ koy liggéey. Njaay xaalis ku ko liggéeyul rek moo ko mën di di ko yóbbu fi caaxaan di ko ku ko liggéey rek mën loolu mais ku liggéey xaalis yeewu heure yeewu mhm. daal ci li mu ci war a daj yëpp mu daj ko ci bu ko amee dina ci xalaat leneen lu dul di ci foo di ci bulow di ci non xaalis ku ko liggéey nga tal leneen yeewu sangu njaay nañu moytu tamit dem ci xeetu xeetu euh, tradipraticien yi ñu naan la defal vocal nga wax nangam ak nangam ma jox ko sama rawaan yeeg ñu déglu ko xam nga dañ lay wax la benn affaire comme tey ñu ne la li Kunkande waxoon waa ji nekkul bitim réew ki amoon problème ak jabar ji ak justice États-Unis mu ko da ngay def vocal nga ne damaa bëgg sa vaudou yi xaw ma sa esprit yi ñu ñu ñu rey soxna si ak doom ji léegi man su ma leen ko dégtalee ñoom dinaa waxtaan ak ñoom ba duñ ko def comprendre nga mhm. waaj def vocal boobu nag sa waay jël vocal bi téye ko bi coow lu jógee daf ni dafa moom jéem a reyloo jabaram moo tax ma lekk xaalisam te fekk moom mooy def loo ay vocal di ko té nañ moytu yooyu kii Ousmane nee na émission bi li tax mu am solo mooy dafay yee Sénégal yi mais amna na ñoo xam ne Ousmane dañu bañ yéw batay ba tey. Diallo di xam dal su kanamee légui légui amna ñu bañ yéw batay gis nga WhatsApp. Hmm. lepp lañ ci wara a moytu de. Hmm. mais vocal lañ ci wara gëna moytu. la wax li eh, Ndiaye. vocal WhatsApp. audio. audio WhatsApp. audio. Lolo gëna ci xam nga man mu tayel mi tay so mu yone ben vocal yow euh, paas. Hmm. ma ki abar ne ma waxal ma pass ne ko duma meuna ñew tay waye lim waaye mi ngeek man. Mhm. duma ko di ko wax de vocal bi laa koy transfert. jeex tak vocal te amana yow go won say wax yegg ci moom deug la deug la. donc lu ñu di moytu. Mhm. ci whatsapp bi nañ ci jital vocal yi ak photo yi. ak ak vidéo yi. ñu dem. Euh, awa Bita tamit moom ah Malam. intellectuel yi quoi dañ ko deglu intellectuel yi waaw. waa ji ab ingénieur la ingénieur kon mooy maanaam jàng na ba sotti ba commencé liggéey. Mhm. am poste bu baaxam mu dugg ci mooy linkit yooyu noonu ñuy dugal seen affaire yi quoi. waaw seen CV ak yooyu. ndekete am na ñoo xamante ne dañuy jël ay mailu mailu maanaam benn entreprise bu nekk Grande-Bretagne dañ lay contacter ne la sa profil daf ñoo intéressé envoyé la benn genre entretien en ligne. nga remplir ko envoyé waat leen ko ñu mettre la en rapport ak ñu jox la mail boo xam ne moom mooy mailu ambassade Angleterre. Mhm. bi nekk fii dafay nekk tamit lépp dafay correct nag. Mhm. maanaam day correct yi ñu lay yónnee yëpp ay correct ndekete njaay dóori kese la. ce que Angleterre xam nañu ambassade Sénégal. Mhm. yaakaaruma ko de. parce que parce que ñi def Angleterre fii nii Gambie la ñuy dem. Gambie la ñuy dem ba pare boo ko demee Gambie sax amuñu fa dañ koy envoyé ba xaw ma fan xaw ma Nigéria xaw ma fan. waaw xam nga nag xam nga nag li mosoon na am ci BNP Paris Banque su ma xaw ma ndax yaa ngi ko rappelé wala euh, mhm. ko encaissé mais xam li problème bi. Mhm. bi ñu ko defalee entretien ba pare defar loo ko parce passeport dafa desoon ay 4 pour mu jeex saa yi renouvelé passeport dem fa moom daal fay na ay quatre cent et quelques defarum passeport ak ay ñaan ak yooyu ba mu xamee nag de boo. ñaan la non non waxuma ah, ah, loolu de. ñaan la def passeport 40 mille. passeport waaw. ñaan 400 mille xanaa waaw mais gars yi yow tamit Ndiaye tamit xam nga fii boo bëggee lu urgent yenn saa yi mën nga xam nga bien que léegi passeport kii nañ ko léegi gaaw na et mais mën ngaa ñëw fii nit ne la kaay ma kii wala ci benn benn benn 24 heures wala 30 mille ma génne la ko nga kii ko quoi. Hmm. passeport mooy courtier yi <laughs> passeport moom léegi fët fët la moom. passeport moom léegi 400 millions yow pass ci ñaan. ci ay ñaan ba pare na loolu neexul de ku ko ni bonjour. monsieur monsieur Camara ci wóoru kalando bi. am dañ ko wax mu génn ay sarax muy génn dem ci koy seral bi mu ko waxee mu génn ay sarax da ko ne ko ndax yow dañ la wax dama bëgg nekk président de république wala <laughs> ay giléem sarax xeeñ ñaari giléem benn nag chauffeuru kalandu <laughs> donc dañ la wax dama bëgg yaa <laughs> loolu neexul de ah, waa waa ji nee na quatre cent mille intervalle boobu noonu ku xorom ne ko bon diw soo xool ba féex na parce que gars yi sept millions lañ ko proposé ak ay indemnité indemnité yooyu noonu eh. léegi desul ba desul nag lu dul nag war a war a ñëw gars na ko na léegi yaay fay moitié ñu fay moitié pour voyage bi waaw saa di liggéenti ba contacté benn copain bu maîtriser affaire yi mais jaay histoire bu neex maa la ko wax ñu déglu déglu affaire bi dafa logique tellement que mënoo xalaat ni nii arnaque la bon man xam nga d' habitude man ingénieur la génie civil habitude damay sur linkit parfois su ma gisee une demande damay ça m'a CV ba benn jour j'ai reçu un mail donc euh, les gars là demandé ma ni ma ils ont vu mon profil daf leen intéressé donc ma gis en tête entreprise bi tout ça c'est une adresse et tout ça ma de vérifier sur le net xool entreprise bi tout ça ma xool en tête lépp quoi même adresse bi tout ça numéro téléphone yëpp ma gis ko ma dugg ci site entreprise bi j'ai vu les mêmes informations que yi ma gis ci waa ji donc ma envoyé leen sama CV bon leen sama CV après ñu gis ma ni ma non profil bi nga am expérience bi nga am par rapport ak projet yi nga def si profil intéressé nañu trop donc léegi dañ lay envoyé benn questionnaire donc bi ma envoyé day questionnaire boo xam si comme entretien vraiment avec questionnaire bi mais tout c'était en anglais hein. ah te entreprise boobu ñu wax si entreprise la boo xam Londres la nekk quoi Watford entreprise britannique la donc ma dugg foofu ma xool questionnaire yi questionnaire yi presque nekk ay questions techniques ay questions yoo xam si liées à la société et tout ça quoi presque trois pages même ma répondre ci questions yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp après envoyé leen ko on a envoyé question ici. Deux jours après, on m'a envoyé un message. On m'a dit vraiment, entretien, ça s'est bien passé. Donc, elle a euh, proposé un contrat de deux ans. Je sais on a pour contrat deux ans. On a envoyé ma lettre d'embauche. Ils m'a signé lettre d'embauche. Puis après, on a envoyé le coup. Le lendemain, il a envoyé ma lettre invitation. Plus, euh, genre, il un règlement intérieur ou entreprise. Donc, j'ai lu tout ça donc ma ni lii moom mooy loolu. bon léegi nag moo ci naqari mooy que juste ban ma koy jox dafa fekk juste sama passeport son quatre mois. donc parce que j'ai payé presque quarante mille francs pour <laughs> pour passeport bi gën a gaaw donc loolu c'est entre nous. message na ni ma amee yow ba xam envoyé nga lettre d'invitation bi à l'ambassade parce que dama joxoon benn email boo xam ni nee na loolu mooy email ambassade foofu laa war a envoyé lettre de bi. ma envoyé ko dama envoyé passeport bi ci mail bi ma wax après ñu ñu répondre ma ñu ma bienvenue xam à l'ambassade de Boudaoubette en Et tout c'était en anglais. ñu pour information pour visa li ak li ak lii ak donc di nga fay huit cent livres sterling comme frais de visa quoi. après ok ba léegi sama xel ñaawul quoi. après j'ai envoyé un mail à l'entreprise mais par exemple j'ai j'ai envoyé envoyé na lettre d'invitation avec son passeport. donc ils m'ont envoyé la formulaire léegi ils m'ont dit euh avant mais envoyé formulaire dinaa ko remplir ba pare envoyé la ba comme j'ai bien rempli la formulaire quoi. donc je lui ai dit ok mais après il m'a dit que pour euh, frais de visa yi donc euh, ce sera huit cent mille mais ñoom mënuñu fay huit cent mille ils vont fay quatre cent mille xel commencé ñaaw donc j'ai commencé nag di feuilleter fu ne j'ai envoyé le mail à nga naa mi ni ko xoolal ma affaire yooyu quoi may feuilleter di xool fu ne di xool di xool parce que sama xel ñaaw na quoi formulaire bi soo ko gisee formulaire bi amul benn changement ak formulaire bi nga xam ne moom la ambassade bu joxe donc lépp nickel j'ai regardé partout ba sax ma xool ci sur LinkedIn quand j'ai regardé ñuy LinkedIn waaye su ma gis ni am na ñu bëri ñoo xam ni même ñun ñun ma ni man na arnaqué noonu la ñu leen arnaqué bon man na ñoom arnaqué ma lekk ci man dara leen rek moo ci moo ci grave mooy que par exemple depuis ma jot information boobu noonu j'étais tellement content parce que ça ma leen proposé presque donc presse bi da ngay sama mbéy eh, di presque j'ai dépensé presque ci diggante bi ay ay quatre entre faire formation en anglais buxaaba yi ak passeport yi donc mais yooyu yëpp ci quoi donc amul na fi cours def ay cours en anglais sax de. kan ci moom mi. ah bon ah jotoon inscrire def ay cours en anglais quoi. Hmm? waaw ñëpp di waajal. <laughs> di waajal tukki bi waaw. na ci na ci ñëpp yeewu nag. na ci ñëpp yeewu mos. waaw na ci ñëpp yeewu c'est-à-dire que. doo ko foog de. non ki nga gars yi. foo foo xalaatoo fa la ñuy génn gars bu ñu yegsee. Mhm. dañ koy préparer ba mu baax. Mhm. gars bu ñu yegsee bu ñu koy teg doo mën a teggi leen mooy liste. سانيخ دون وخ نان افي بي فات 7 7 كو خامني يين صاح مونو لين ما گم بوي ليرال صاح ياو ليغا لين ليرال ياو تي نيوم داي لندم نو جي تي دي نيوم لين نيي وخ رك موم لا نيي لا امنا ني ماي انواي ميساج جي ما وخ ني ما امباساد غران بريتانيا امنا امنا دكار امنا في مي سيرفيس فيزا بي مو في امول سيرفيس فيزا بي فور فور انغلتير ريبريزونتاسيون ديبلوماتيك بي موم امنا في اوكي مي سيرفيس فيزا بي ناك موم امو في فوالا كون لول لا كون لول لا دو تي سوري نداخ داي ملني داغاي seen communication ñu fi ne ambassadeur Sénégal yi la ñuy xool fu ñu nekk mu ñu fa nekkee. ñu ngi ci jàmm de fi ñu <laughs> nekk ñooñu nga ñu ñu ngi jàmm moos. kon baax nañu <laughs> fexe ba suñuy doomi réew yi nekk foofu rek ñu ne ci jàmm. paas waaw nañ dem. ñu dem Ghana Ndiaye. Ndiaye li tamit wax dëgg yàlla nag ah. ah. ñun on a beau sensibiliser quoi. xam nga Ndiaye balaa ngay gën a am lu la métti nit woo la di la wax ne la sama doom wala sama rak dafa jël gaal doon dem. soit tukki wala yooyu noonu quoi. déggatuñ ko wala gisatuñ ko. et en parlant de am na ay Sénégalais yu fi doon gaal jógee fii def huit jours ci géej gi dem teera ji dax la. waroon naa la fa tey. ba seen yaram yi commencé woon di am ay kii. consul bi ñëw na ba ci ñoom pour ñu proposer ñu rapatrier leen teg leen ci biis ñoom ñu bañ avion lañ leen dugal. bi ñuy ñëw lan la ñu yëgoon. gaal def huit jours ci géej gi cest à man vocal nañ ma dama ko wax man leen léegi yéen. la moo tax ngeen doon jël bus te ba ngeen dem ngeen jël gaal ñu ne duñ jël duñ jël bus parce que dañoo feebar nangam ak nangam benn yow bi nga fiy jóge jël gaal kenn yëgu la c'est-à-dire il faut dëgg kenn boo eggoon doo yëgal état doo yëgal xalaas léegi nag am nga problème nit ñu pour dimbali la yow mënoo dimbali sa bopp fa nga nekk ñu lay dimbali ngay taamu. ñu ne ñoom duñ yëg bus. jël ndax dañoo feebar. consul ba dellu na la fa mu nekkoon def na lu ko war dañoo wax dëgg la. déedéet déedéet xam naa la. non mais bu question tàng xol tamit loo xam ne xool Ndiaye. <laughs> Ndiaye nañu waxante dëgg loolu du force. Ndiaye waaw d' mais mais tamit nit boo koy. dimbali nit nit dong nga xam naa <laughs> consul ba. da leen a jéppi baal <laughs> da leen a yàlla baal li ma la defee loxol borom. booy mais comme moom dugg na ci ba ba fii moom leen topp gis nga nit boo ko tanewul doo ko jiitee xëy na ñoom la tax bëgguñoo dugg bus peut-être dañu laati kaaf peut-être dañu sonn peut-être dañu feebar bu ko bu fekkee mën na ko na jul na jël ab avion rek rungu leen ci dugal indi njaay huit jours nga def si géej huit jours. waaw waaw d'accord raison de plus nag. danga wax ji imagine foofu ñu nekk mooy fan. ndax la gii frontière frontière Maroc. loo laati kaaf laati kaaf la nga muñ ci géej gi doo ko muñ ci bus bi. waaw d'accord mais def huit jours ci géej gi xam nga ñaata jours la ñuy defaat pour dellu si Sénégal ci bus. daa bari. frontière u dama dama jaay lu mu bari bari matul deux jours wax mais nañ leen dimbale rek ñu ñëw buñ leen topp dañuy dem Ghana ñii tamit mooy ñi ngay dajal fii ñu naan lay am naa liggéey fii trois cent mille trois cent cinquante mille mais Ndiaye waa ji dem dóor nañ ko dóor bu neex waay ab sénégalais la waaw morom sénégalais dóor ko ma nga ca Ghana ya, toog proposé ko liggéey mais dafa sensible ay nit yéeg dem don dem Europe mujj ñoo dem Europe ñu proposé leen yéeg bus indi leen mais Ndiaye am naa ci xalaat yu neex <laughs> mais dafa sensible dem duggu gal dem yem marok ñu ne dañ lay duggal bus indi la nga ah, ah mais pas égal. ah non non non non non mais dafa sensible. mënu ma ci wax mais ni sama xel mi. ah, <laughs> ah way yo tamit. deug ah waji mom moom encaissé nañ ko 700 et quelques mille te kam ko encaissé musu ko gis xamul ndayam xamul bayam facebook la ngi dajé koko ne am nañ fi liggéey bu ñu fayé ko 300000 400000 par mois mais nak légui bala ngay ñew entreprise bi daf lay jox logement yaay fay 50 pour fait mu fay 50 lek bi yaay fay 50 pour fait mu fay 50 pour ndox bi mo dal limal ko limal ko limal ko limal ay carte consulaire ak carte embarquement wak yu ken xamul waa dem mom lijjanti na 700000 ci quelques jours mom pour dem wuti liggéey Gana. Gana gi lolu mo njëkk contradictoire c'est-à-dire que yow amuloo au Sénégal mais mën ngaa liggéey lijjanti presque 1 million pour ni da nga dem liggéey Gana. <laughs> léegi fu mujjee. waajal lekk na 700000 bloqué numéro am mu perte comme ça. ñu déglu ko déglu Facebook yi ko xamee bon daf ma demandé ami ma accepté ko mu envoyé ma numéro ma lire ko bàyyi noonu dans cinq minutes mu envoyé ma benn message ma envoyé les numéros ma tontu ko ne ko pourquoi ma lay envoyé sama numéro mu lire ko tontu ma ni ma da ngay sama mbokku ma sénégalais rek dama bëggoon a xamante ak yow rek jaamu laa koy doyee xam nga man itam envoyé ko sama numéro mu acheté sama numéro envoyé ma foofu benn message xamal ma ni ma moom sénégalais la Canada la ne fa lay liggéey ngi dëkk Dakar Kër Massar léegi après mun ma xanaa bëgg ñëw fii Sénégal métti na man moo tax sax bon ma daw ñëw fii fii fii moom bi fi ñëwee wax dëgg yàlla maa ngi sant naa fi sama benn mag moom fi andi ak sama benn rak si port bi la ñuy liggéey mais fii vers euh, ñu fay trois cent trente mille xam nga pour nga am ko foofu Sénégal yombut fii xam naa li ne foofu ne fii kon nag su ma seen daal wax dëgg yàlla bon nga def euh, tout pour ñëw fii kon léegi man nan laay def pour ñëw foofu mun ma bon kooku dama sama grand frère bi fandi parce que moom moo xam bon nu ñu mën a def ba ñëw fi léegi danga may may parce que man moom ñu ne instant bi guddi moom mu nga néegam maa sama nekk bu subaa après bu xëysee bu ñu gisantee man dañ waxtaan si man kon baax na maa lay déglu léegi sa suba ga ay douze heures mo sama grand frère sax ñoo bokkoon toog nii waxtaan bu mais vraiment déglu na sax say audio mais da ko rafetlu wax dëgg yàlla nee na moom it bëgg na la jàppale pour nga ñëw fii ba ma ñëw foofu léegi mun ma fii moom xam nga bokk tak euh, Sénégal ñun moom jëluñu sama sama sama mag bi moom moo xam euh, bureau secrétaire bi bon léegi day dem si secrétaire bi waxtaan ak moom su fekkente ni place yi def na des na après mu xool bon nu def ak condition a ne foofu a nu ngeen may teg après daal la ma limal ay frais yi xam te si bon moom laay def pour dem fa maanaam ay logement restaurant pour soo fa nekkee fooy fi ngay loger courant beeg ñoom seen da nga war a am kayitu hôpital pour en feebare limoon ma lima lima lima daal ba ba daal mu kërgale ko ni soixante quatorze mille francs la loolu daal mooy li nga xamante si seen lay lijjantilee papier yi lu si nekk rek yow da ngay cinquante pour cent entreprise bi moom moo lay cinquante pour cent yi des pour jàppalee la ko loo war a fay deux cent mille exemple da ngay joxe cent mille francs entreprise bi joxe cent mille francs pour jàppalee la ko kii boo war daal doo si fay loo si war a lijjanti papier yi comme que balaa a liggéey foofu il faut ñu lijjanti papier yi mun ma noonu xaalis bi da koy envoyé ñu lijjanti la papier yi ba papier yi yëpp mat xam ne yow soo ñëwee rek doo toog da ngay ñëw rek liggéey parce que xam a dem a li day moom laay def fii man ko léegi baax na su ma euh, denc naa xaalis boobu instant bi nii nii nii nii la lu am na lu denc mais il faut ma ma lijjanti amoon naa benn Jakarta moo joxe woon muy daw di ma verser dama koo jaay oto boobu laa mujjee jaay ak euh, li ma dencoon lépp tout lijjanti sept cent soixante-quatorze mille francs ma wax ma ma benn numéro ni ma si si numéro bi nga koy envoyé ak si tuut bi ma dem envoyé ko léegi bi ma ko bi nag envoyé ko vocal ni ko xaalis bi ma la envoyé bi ma la woon a envoyé envoyé naa la ko par orange ma ne si numéro bi bi nga ma envoyé woon bon léegi après soo gisee nag ma def si njolaay dëpp ma toog euh, cinq minutes sama whatsapp gis ni lire na message bi ma ne xaar ma euh, envoyé ko message ma dugg pour envoyé ko message gis mu bloqué ma ma jël numéro am enregistré ko si sama benn téléphone copain gis ko mu nekk foofu en ligne ma envoyé foofu message ni ko da ma boole kay whatsapp xaw ma nag la xaw ma dama doon laaj xaalis mi ndax jot nga si wala déet mu leer message xam ne man maa ko envoyé mu boole ko waat whatsapp suba dinaa la indi njaay waaj ci boppam. Mhm. maanaam kii recruté fële moom yim lay laaj ak ni mu la koy laaj ni nga koy yónnewee. na ma yàlla baal de na ma yàlla baal mais réew mi boo fi jubee da sonn. parce que ki jub ba tax mu japp ni ki muy jëflanteel jub na moko ray gis nga ñi ñuy nax ci xéet yu yi ni xëy na yéwo nga ci de mais jom ju baree ngi ci jom ju bari moo tax ñu ne la yoon yi bo fa jaaré di nga mëna tekki am teranga nga yor njub gu toll ne japp nga ne yow ki ngay jëflanteel gor la ne yow warut ta egg ak yow ci yenn basses yi nga ci ak mom malheureusement fi lay mujj 77 ne réew mi fi bo fi mhm. jubee da ngay sonn na sonn de. mais Ndiaye ci am réew lañu nekk moo xam ne boo fi mënee lijjanti un million te amul loolu looy liggéey war nga fee mën a yaakaar ni boo fi toogee góorgóorlu tuuti war nga fee mën a am leneen lu dul lii. vraiment mais du question ni damaa war a dem njaay ay ay Côte d'Ivoire rek ay gën a lan la ñu ñëppalee loo joxe un million di dem. ay gana li ñu lay proposé amu fa njaay réew mi nga dëkk sa nday dëkk fi sa baay dëkk fi nga mën a fee toog bañ a xëy mën fee lijjanti un million njaay sa xel mi boo ko usoon tuuti am un million boobu fexe ko liggéey wala def ci dara maam balaa at mee jeex nga def ko fukk 77 150 17 17 ba suba tey maa tëj <laughs>